à cause de de ça affaire suuf est-ce que yow euh, da nga am ay hectares. ay hectares suuf wala yow da nga jot joxe ay hectares suuf. non man damay joxe mais damay joxe sur la transparence parce que n'oublie pas ñun zone bu ñu dëkk suñu yaakaar yëpp si suuf la parce que quatre-vingt-dix-neuf pour cent des populations ci béy la ñuy dundee. Mmh. kon suuf boobu la ñu gën a fonk sax seen bopp pour te dire ci est-ce que dina lalu ci transparence euh, waaw parce que lu tax ma wax la ko yàggul sax euh, damay joxe mais sur la transparence laa wax ci lu leer mhm. du ma ñëw yow nga soxla benn dix hectares benn cinq hectare man ak yow une zepet doo ko def tamit ci yaama no non man li may def mooy dama am sama commission domaniale boo xam dama ko teg comme dans toutes les communes mhm. yow soo ñëwee bu dee investisseur nga wala da nga ñëw pour bëgg a def benn programme au niveau de la commune nga interroger ma lii laa soxla def dama koy jàngat ba xool est-ce que loolu d'abord bu amee si dëkk bi est-ce que dina avancer loo dëkk bi wala du avancer loo dëkk bi est-ce que superficie bi nga ma laaj mun naa ko génnee dans la commune parce que ñun seen ne sont pas des terres loties kenn ku ne àll bi ni nga ko gisee foo laal am na ko fa moom sama maam sama papa sama sama et cetera. pour dëkk la wala pour bay. pour dëkk ak pour bay yëpp. Mm-hmm. pour dëkk ak pour bay foo laal am na ko fa moom. mais mais da ngay koy séddee noonu. waaw loolu laa la bëgg a expliquer maanaam soo ma laajee suuf nan laa koy joxee. maanaam loolu laa la bëgg a expliquer. ci yan condition wala naka nga koy joxee. cest à man boo ma laajee euh, nga ne ma bëgg naa 10 hectares loo ciy def nga ne lii laa ci bëgg a def damay introduire sama commission domaniale ma toog ak ñoom laaj leen dans la commune fan la ñu mën a am 10 hectares. bu ñu waxtaanee bu ñu juboo si site boobu mën nañ fa am 10 hectares dama leen di yebal foofu bu fekkente ne si diggante ñaari dëkk wala ñetti dëkk la nekk dañuy dem gis trois chefs de village dafa am lu meer soxla mais fii la ko xalaatee bëgg na ci def lii ak lii ak lii lii mooy importance bi. Hmm. léegi chef de village yooyu ñooy joxe seen feu vert ñu ne amul problème d'accord nañ ñu jël rapport boobu def ko kenn ku ne ci ñoom dina si signé ñu indi ko nag conseil municipal devant le sous-préfet. E-, est-ce que est-ce que am na euh, si ce si ce ay ñoo xamante ne ñoo demandé ay terre ay suuf. non nga wax leen ni non. pare gu ma nga wax leen ni. <laughs> non xam sa question bi fi jëm rek. <laughs> nga wax leen ni bon non duñ leen ko jox parce que bon seen position leer wala quelque chose comme ça est-ce que arrivé na. man ki ma laaj ñi ma laaj suuf ma rejeté leen loolu mosuma mënuma koo compter. parce que quand on dit tu es maire rek kenn ku ne dina la woo monsieur le maire mënoo ma daggal 3 hectares. awa ah, monsieur ma jox 3 hectares. mun naa la jox lii ñeneen ñi sax di la proposer ay millions ay ay kër. pare nga pour pare nga pour accueil bon Aïcha pare nga pour accueillir benn équipe boo xamante si gouvernement bi la ñëw ñu auditer sa commune. bien sûr <laughs> bien sûr. man kay personnellement man man. loolu bu la nekkee sax tey tey tey ñu dem. amoo ay dañuy wax mairie dañuy am ay hectares hectares. non non non amuñu ko dégg nga xam nga sànq dafa loo bëgg a dafa am loo bëgg a expliquer nga dagg ma da nga war a <laughs> xaar ba pare. <laughs> comprendre nga maanaam yàggul nii joxe naa dix hectares parce que dafa am benn entreprise bu ñëw am lu ñu ma wax. ma xool ne carrément su ma ko defee intérêt dëkk bi la parce que day tax ba ñu am emploi parce que benn entreprise boo xamante ne mun na la jëlal presque 3000 ba 4000 mille jeune ta commune ok xam nga loolu lu am solo la moo tax ma accepté amal na njëriñ mais si deux deux deux ans et demi yi ma toog liñ ma laaj si ay suuf mënuma koo compter mais ñoom rek laa accepté gu très bien merci la dernière question